seen kaw. waaw son discours le discours du président Ousmane Sonko roobu daanaka day day day refléter un peu l'exigence euh, des populations actuelles africaines notamment sénégalaises euh, donc euh, c'est d'ailleurs ce qui a fait la force de Pastef parce que au bon moment euh, ils ont compris que le discours bi nga xam ne moom la population yi bëgg aspiration yi nga xam ne moom la population yi soxla vis-à-vis surtout euh, de l'Occident et particulièrement de la France euh, Pastef a su susciter justement tout un débat autour donc tey ji bu ñëwee taxawaat renouveler le même discours euh, je crois que c'est toujours dans la même logique mm. euh, de ce qui a été à l'origine de l'ascension de Pastef ba egsi tey au pouvoir mais juste rek benn petite euh, note bu ma bëggoon kii parce que c'est vrai que vous dites que Mélenchon Mélenchon vous a soutenu quand c'était chaud mais je dis non c'est pas Mélenchon qui a été le premier à vous soutenir euh, parce qu'il a le président Domingos Domingos Moïse le président du PAIGC kii moom <laughs> dafa sol dàllam ñëw fekk pas vu quelque part Pastef magnifier euh, ou bien lancer ce même entrain vis-à-vis de de de Mélenchon bi ñu lancer vis-à-vis de Mélenchon vis à euh, donc je me dis là il y a un problème sànq ma doon wax moi j'aurais préféré que tey jii à partir du socle africain ngeen fexe ba nouer toutes ces relations là après nag boo leen demee de l'autre côté vers euh, l'Europe vers l'Occident euh, vers la Chine et consorts mais au moins qu'il y ait ce socle parce que le combat il est sénégalais il est africain moo tax c'est le c'est ce que reflète le discours de Ousmane Sonko. Ah mooy la nga xam ne noot gi nga xam ne ñu ngi koy noot Afrique waxul wax noot bi ñu noot Sénégal noot bi ñu noot Afrique. donc loolu la ñu bëgg dindi et à travers ce combat. Mhm. Pastef nekk ci un une figure de proue mais man dama jàpp nag tey jii pour que ce combat puisse porter davantage euh, li ñu fi ñu waroon njëkkee mooy faire en sorte que Issa euh, Domingos un tel. des gens qui se battent pour les mêmes idéaux euh, ñu fexe d'abord mhm. faire un socle dur soog a mën a dem nag de l'autre c'est une interpellation à Ismaïla a ci tontu xanaa xanaa Pape Sane dafa xaw a yàkkamti wala au moins xoolul euh, suñu réunion bureau politique bu ñu mujjee génn par rapport ak agenda président Ousmane Sonko euh, président du parti PASTEF j'allais dire bi mu teg donc am na benn part bu mu réserver l'Afrique en tant que telle am na voyage yu bëri non Ouais, la Guinée-Bissau donc c'est bien c'est bien de plaider aussi déjà amul date dañ ko teg c'est des vœux ouais. c'est des vœux yu ñu ko concrétiser may fàtte en Gambie qui s'est investi c'est normal c'est xam nga loo gis rek étape par étape la koy defee bon peut-être ñun suñu biir waxtaan suñu waxtaan mooy évacuer euh, vraiment suñu invité de marque bi nga xam ne moom dafa pare woon ñëw avant mhm. parce que wax na ko moment bi ñuy barricader le président Ousmane Sonko à Ziguinchor mhm. bëggoon na ñëw mais situation bi tax ñëwul woon. donc ah, comme li mu tegoon la boobu ba tey xëy na moom moo tax mu ne nag naa profité balaa calendrier bi di gën a chargé wu. Mhm. te effectivement ça va se charger mu ne naa dem ma ma gisante ki ma war a gisanteel ñun aussi tamit ñu pare pour teeru ko. Mhm. mais président Ousmane Sonko xam nga ñun bu ñu demee ba jël suñu parti Pastef mu nekkoon patriote di Sénégal. Mhm. ñu dindi ko def patriote africain di Sénégal c'est parce que ñun. jël nañ part bu mag a mag a mag réserver ko l' Afrique en tant que tel mhm. parce que panafricanisme bi nga xam ne tam moom doon woote démb ak barki démb tey moom la ñuy gën a dëggal mhm. parce que c' est très important ba au delà du Sénégal que l' Afrique maintenant puisse se souder puisse s'unir tamit aussi tamit pour faire face ah c'est euh, changement bi nga xam ne changement euh, dynamisme mondial bi nga xam ne mu ngi ci suñu kanam te mhm. bu ñu boolewul suñu doole avec la porosité de nos frontières mun nañu xaw a sonal. mais dafa am loo xam discours bi sax il a réussi à il a invité autant pour moi les Sénégalais à dissocier sa casquette de PM et sa casquette de président du parti PASTEF mm-hmm. par rapport ak discours bi nga xamante ne mi ngi ko doon tenir parce que état l'état c'est l'état c'est un ensemble mais parti politique nag comme radicalité bi ngay wax war nañu mën a am tenir discours bu leen neex ci nu mu leen neexee. mais tey euh, dissocier boobu comment cela va se faire également. waaw xam nga heureusement je dis encore heureusement que il n'est pas le président de la République euh, parce que bu nekkoon président la bu doon tey jii euh, président Diomaye mooy en même temps président Pastef on aurait eu un problème pour dissocier. Mm. mais kii c'est le chef du gouvernement donc tey jii. seulement ceux, ceux qui ne veulent pas comprendre ou bien ceux, ceux qui ne veulent pas faire la différence entre le premier ministre et le président de PASTEF sont libres de ne pas faire la différence mais li leer ba leer mooy que tey jii le discours qu'il a tenu et justement l'agenda qu'il a mis en place c'est un agenda bi nga xam ne c'est le PASTEF et ils n'ont pas cessé de le confirmer man fi may waxee ak rek mooy comme ni président Diomaye solee dàllam faire les la tournée des pays riverains mhm. politiquement vous aurez dû faire la les pays riverains. mais puis, Ousmane a annoncé un agenda Pape et cette visite de Mélenchon c'est à la demande de Mélenchon de venir au Sénégal. ah bon d'accord bon. <laughs> <laughs> ci ci côté boobu déjà euh, dañu gis ñu son ko wax na ko tey ci euh, conférence bi déjà rappeler lu balee bari ci Afrique relation yu mu war a am ak euh, Europe mais aussi taxawaay bi Afrique war a am est-ce que Afrique problème am Europe la wala ñun Afrique ñooy sunu problème mu bopp. parce que souvent damay gis nit ñi di ko kii gis nañ tey musol Samba Sembe ak Rabal euh, pour wane africanité beeg yooyu mais est-ce que on a on n'a pas un problème entre nous-mêmes. non. au lieu li ñu koy jël souvent waa France. di jàpp ne France souvent mooy sunu. non non non euh, la France musul nekk suñu problème. yow munoo tey jii nga yor sa cugalu goy nga ne yow. ki nga ki nga jàkkaar yoon mu nekk sa ennemi moom mooy sa mooy sa problème déedéet ça dépendra de nos comportements. donc il faudra que am loo xam ne moom mooy changer ci ñun surtout sur la gestion parce que nee nañ uudee. Euh, ni mu la gisee la lay mais je pense que Ousmane l'a précisé même dans son discours. Mhm. une partie mu ngi naan suñu problème également du France kese. mais ñun suñu bopp la ndax suñu nee mauvaise gestion ñuy luubal suñu xaalis. Mhm. du waa France ñoo ñëw di ñu. ñuy luubal di luubal. mais xam nga France takkul wañaarul wala am na et puis si si si on n'est pas unis si on n'est pas unis aussi tamit. Mhm. le problème va va va s'accentuer. parce que tam nit ki bu fekkee ne moom dafa am ay intérêt yu soxla. Parce que au moment où on dit que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont leurs intérêts hein, à mais bu xamee ne kii kii il est faible te mun naa am fu ma ko jaar ba mun a li ma soxla ma jël ko da koy jël mais fu ñu nekkee benn benn mbooloo bu takku bu dëgër xam suñu intérêt ñun ñëpp. comme du temps de la fédération di Mali. Ouais. on bien parti mais qu'est-ce qui la petite humaine moo tax ñu tasaaroo ba tey jii situation yi dal ñu. léegi nag président Ousmane Sonko il de refaire un peu l'histoire ou bien d'apprendre de l'histoire pour dire que ne ñun dañoo war a booloo dañoo war a nekk benn dañoo war a booloo dañoo war a nekk benn loolu man je pense que c'est indispensable pour l'Afrique mm-hmm. donc mm-hmm. taxawaay boobu la président Ousmane ko am te à travers Mélenchon mu ngi koy rappeler mu ngi koy rappeler les pays européens ñi nga xam ne ñoom ñun suñu rela sur la sur la relation bilatérale que ne ne ah ce qui va se passer mooy di ngeen ba sax bu ñuy négocier duñ soit on ne va plus négocier de manière dispersée. Oui. mais on va négocier pour l'Afrique. bu ko defee africain bu nekk gis ci boppam mais également pays souverain africain bu ne gis ci boppam. d'accord Issa dañ lay bàyyi parti boobu ngeen développé ko demee ca penco mais ñu continuer xuus dem ci nomination yi. voilà nomination yi lañuy dem ndax démb gis nañu aussi ñu daal di nommé ñu takku ci euh, ay postes de responsabilité secretaire générau ay ministères beneen bi mooy ay postes de direction nomination yi génn nit ñi. ñi ngi ciy commenté xëy na certainement gis nga ko ndax gis nañu euh, ku ci mel ni euh, Thierno Bocoum mi ngi wax ne ressaisi euh, ressaisissez-vous ngir ñu mën a xool bu baax li ñu dige woon muy rupture bi li koy symboliser xëy na selon ñu bari mooy yenn ci ay nomination bu ci mel ni bu ay Mbodj ñu jël ko yóbbu ko deer ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci coalition bi ñu cëral leen est-ce que même vision bi nga am selon ñiy jàpp que ni rupture bi ngeen annoncé woon nekkul bon man rupture bi ñuy wax c'est ah, par rapport à quoi au juste parce que je pense que ku bëgg liggéey réew mi ah vraiment da ngay da ngay il faut que vous mettez place une équipe donc en ce la phase bi ñu nekk mooy phase euh, xool ñi nga xam ne mun nañoo liggéey ak ñoom. Mm-hmm. ñu toog leen ànd ak ñoom liggéey parce que je pense que loolu moom prérogative président de la république la di Sénégal avec son premier ministre ñoom ñooy toog réfléchir selon les profil ku ci ne ñu teg la fu ñu la war a teg jàpp na mun nañ liggéey liggéey ak ñoom li nga lu am solo. Mm-hmm. mooy le résultat en quelque sorte parce que lu jub jubal jubbanti di nga gis ku jubul woon nga jubbanti jub jub jubal jubanti am na ko jubul woon koo xam ne bu duggee ci euh, duggee ci slogan boobu ci wàllu doxalin moom dana xam nu muy doxee parce que le résultat rek moom moo ñuy importé suba te comme le président Ousmane Sonko l'a dit hier nous allons réussir. oui parce que mënuñu wax lii yëpp sénégalais ba pare du ñun duñ ko duñ duñ ci tegoo duñ ci sacrifié wu pour incha allahu résultat bi ñu soxla suba sur la cette transformation systémique. assumée et qui doit être profonde. duñ ci yegg si. est-ce ngi si yoonu yoon boobu noonu parce que résultat wax nga ko mais résultat cappaandaw ga lay doon bu boobaa nit ñi duñ ci mën dara lu dul dem ci urne yi sanctionné nit ki mais pour yoon wi nga xam ne moom ngeen digge woon euh, gis nañu agence wala ay direction yoo xam ne euh, yenn yi daanaka li nit ñi di laajte mooy est-ce que njariñam dëgg dëgg dëgg taxaw na am na ci yoo xam ne mënoon nañ ko boole comme niñ ko defee ci ministère yeeg yooyu noonu bii ñu gis direction yi carrément ñuy jël di nommer man am na démb ay direction ma dégg je croyais que même existé wul euh, loolu bokk na ci euh, bon signe de bonne gouvernance boo xoolee rythme de nomination yi boo xoolee rythme de yi nga xam ne agence bu nekk ak direction bu nekk càmbar nañ ko bu baax wala ba balaa ñu fa seet ku ñu fa dugal parce que des fois sax dañu daay dañ koy wax ne nomination yi wala lan moo tax mercredi bale nommé wuñ amul ay nomination c'est parce que à chaque fois dans chaque secteur dans chaque ministère dañuy xool la fa mën a nañu ne mu ne fa. da ngeen di fi amoon kon. mais mais dama la bëgg a. à la limite ñu supprimer dara dama la bëgg wax lenn. dama la bëgg wax leen yi ngi les ruptures sont en train d'être actées faut oser le dire parce que il faut partir depuis le début quand le président de la république xam nga formation politique bi nga xam ne moo ko porté woon dafa ñëw pour nekk pour bañ a nekk pour être au de la mêlée ouais. il a démissionné quelque part aussi tamit il faut noter que rationalisation des dépenses am na quelque part sur le nombre de ministères kese no déedéet foofu ngay dem foofu ngay dem foofu ngay dem ndànk-ndànk soo wàññee ministère yi direction yi ñu maintenir ko waaw maintenir même liñ doon jox ñooñu noonu voiture non léegi da ngay jëm da jëm ci ministère yi nga natt ne bu nekk ministère yooyu ñu wàññi am na koppor bi fa doon dugg je dis nii comme ça sur le tas imaginez ministère ministre bu doon recevoir 3 euh, euh, millions cabinet bi yëpp boo ko dajalee xëy na tam benn cinq à six millions dina fa dugg calculer loogu sur la et sur le budget kon kon quelque part da nga gis ne ne ñoom lu ñu bëgg ressources yi ñu bëgg mobiliser pour que mu dellu ci Sénégalais yi mhm. ñoo ngi ciy taxaw loolu moom moo importé maintenant nag dire que maintenant nag yow doo gouverner ak ñi nga àndaloon euh, démb ak barki démb ak surtout ñun euh, valeur intrinsèque yi nga xam ne moom moo nekk dans le PASTEF on nous parle on vous parle de 1400 yoo xam ne ñoom ñoo sëggoon ci programme bi ñoom ñoo xam le projet. léegi nag ñooñu léegi nan nga leen def te et puis on avait presque plus de d'une vingtaine de commissariats commissariat bu nekk comme par exemple man mi di wax ak yow commissariat santé action sociale la nekkoon mais imagine le commissariat boobu rek mun am na à peu près quatre-vingts cadres yoo xam ne ay sénégalais lañ. duñ ay japonais. duñ ay burkinabé mais ay sénégalais lañ. responsabilité ñooñu bu ñu amee prérogative nekk ci poste de responsabilité selon les profilages. parce que lan on nous demande nos CV. tey jii mun naa jël joxe sama CV sama beneen morom jox ma CV mais profilam gën ma baax moom day dem. alors que man maa yoroon pourtant poste de responsabilité ci commissariat boobu parce que je suis le responsable thématique. Mm-hmm. ay dem si selon son profil war na fa mën a nekk. oui 40 ans d'expérience dans la politique. c'est déjà bien parce que parce que y a y a a mon professeur de euh. microbiologie. Euh. maman Ayou. Euh, doon moo wax ne bu keroog ba ñuy jox suñu suñu suñu diplôme yi. Mm. fête fin de promotion dafa doon wax ne vous êtes là très diplômé mais dans la milieu professionnel y a pas de plus diplômé. y a que plus expérimenté tey jii yéen fii nii da ngeen fi fekk ay reporter da fi fekk ñu nga xam ne dañoo yàgg ci kër gi ñu jàngal leen lu bëri xam ne yow dem nga def théorie bi euh, au niveau au de formation mm-hmm. donc nañu accepter aussi tamit oh, il faut qu'on puisse vraiment def allier la part des choses l'expérience mm-hmm. vraiment et la jeunesse d'accord Euh, Pape Sané tey par rapport aux nominations Issa mi ngi soulever inquiétude par rapport au maintien de euh, yenn agence wala mm-hmm. yenn